waaw xam nga nga def benn mbir ñëpp ànd ci dafa jafe mais li ci ëpp solo nan xool est-ce que njëriñu askan baa ngi ci wala njëriñu askan te ñun lu ñu ci jàngat ci biir gis nañu ne njëriñu askan moo fi ne parce que ñun ñi nga xam ne def nañu élection lu ëpp fukki yoon suñu la waxee ne gis nañu njëriñu askan baa ngi ci am na parce que benn bu si jiitu mooy ci boo xoolee tey projet de loi bi lu mu wax waxoon nañ ko bu njëkk ba en 92 waxoon nañu ne ku ñu condamné joxe ay dat bu ñu la condamné mënoo mënoo mënoo mënoo mënoo jiite réew mi mënoo voté mënoo jiite maire yi mënoo def leneen loolu nag bu mu fekkente ne tey code bi wax na ko te mu nekkoon ci code bi ah depuis 1992 tey ñu ne lu bees la loolu du lu bees loolu yàgg na fee am te crime dañ koy juwaatle ak li nga xamante ne mooy délit ku def crime boo xamante ne yow wóor na la ne yow mii alalu jàmm nga lekk jaay nga drogue yaa xam sàcc nga yaa xam leneen nga. code bi ñëw ne boo koo ca kooku yàgg na ci code bi kon modification amul foofu modification yi ci am yëpp loolu yokkute la te ñu ko def mooy lan mooy ñi nga xam ne mooy acteur politique yi ñoo toog waxtaane ko ne nan dugal ni nan nocci lii ba amee point yoo xam ne point yooyu duñ ci mën a d'accord point yooyu ñu d'accordul nag foo fekk sax si biir kër gi nga nekk am na loo xam boo ko waxee dana am ñoo xam ne dana naan d'accord ma ci ñii ne la d'accord ñi nga xam ne ñoo ñoo fi représenté population bi représente askan bi lan cey jëkk xool est-ce que code bi du lor askan bi wala dana ko lor ñun loolu mënuñu ñu intérêt depuis 92 ba léegi nee na bii laa la wax loolu ñun ñu na ko nit ñi leen xam bi ñuy wax boo demee ci code bu njëkk bi boo xoolee ci article di ko ci gis ku nu tëj mënoo bokk ci élection ku tëj mënuloo wote loolu ñooy demal dan xelu nit ñi ci biir code bi nag ay peut-être mën nañu modifier article yi def ko numéro article L 2 L 29 ba la nekkoon article L 30 quelque yi demoon exemple laa la laa la ci jox mais li ci gën a ëpp solo mooy du article yooyu li ci ëpp solo mooy lanu wax ca biir mbir ma lu ñu wax mooy lan mooy ku nu tëj si nga luubal alalu réew mi luubal alalu jàmbur mbaa nga sànq waa mbaa drogue mba li nga xamantene da nga sàcc lolu mënoo bokk ci élection kooku c'est valable pour Samba pour comme Demba comme pour un sénégalais. organisation système électoral xam ngeen ne yéen or euh, élection jamono bu ne ak lu mu laaj nee naa la am na jamono yoo xamante ne organiser élection metti won ni Sénégal mais lolu tay boy xol fété na bor lutax mu fété bor moy nit ñi évolution day am code bo gis nak day am amélioration amélioration nak bu amé da ngay sentir ne kon réew mi mu ngi dox démocratie ngi dox parce que pour lan parce que idée yi ngi changé ñuy développer yeneen xalaat di ñëw xam-xam bi di bees di ñëwaat ñu xol loolu yëpp pour rek la pour lan pour li nga ñëpp nekk nekk à l'aise pour réew mi ëllëg du bañ a parce que boo xoolee am na réew yu bëri lu ko taal mooy lan mooy ñàkk dem élection ñàkk respecté ak yelleefu nit ñi ña ñàkk respecté li nga xam ne de mooy code électoral bi mais sunu Sénégal gi sunu xel dal na parce que boo xoolee par rapport ak réew yi nga xam ne jëlee ñu rek ci lu mel ni États-Unis Le mel France yéen gis ngeen problème France am Sénégal amuñu ko problème États-Unis am ci wàllu élection amuñu ko un président boo xamante vision am na te jël affaire bi ne askan bi xalaat leen ci jox ñu bokk élection ñu nga liggéey réew mi pour Sénégal jëm kanam loolu moo fiy dox kon nag bu fekkente ne ñun pare nañu pour dem élection dem élection nag dañ koy demee ak accompagnement accompagnement mooy lan mooy code électoral bi code électoral bi gisuma ci sikki saaka mën na dem nag ba ci kanam jamono changé waat ñu changé waat yeneen yeneen i mbir ci biir mais loolu noonu la àddina di doxee moo tax tey jii satisfaction laa am te dañ koy voté à cent pour cent parce que gis naa ne njëriñu askan bi la parce que président Macky tey lépp lu mu mës a indi fii njëriñu askan mu ngi ci su ma la ko waxee gëm ko parce que ma dan daan voté ba minuit léegi mënatunoo voté ba minuit 6 heures bureau de vote yëpp euh, ñëpp voté nga voté metteetul am na ñoo xam ne dañ daan toog seen kër si ne coono gi may def ci voté du ma ko def loolu yëpp amoon na fi mais lu ko woyofal tey mooy xalaatu président ak gars yi mu àndal ba loolu tey am nañ ci ndam lu rëy rëy rëy macha allah.